ay jàngalekat yu jigéen lañ di servir ci école yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Bambey wante ñenn ñi dañ leen di wooye analphabète ndaxte ñoom ñi dey dara xamuñu ko ci li nga xam ne moo di informatique soxna seen euh, femmes yi dañ ko soxla ndaxte outils ñuy liggéey yëpp que ce soit dans les classes ak yeneen yi on a besoin de ces outils la Donc euh, c'est pour cela que nous sommes engagés. Comme euh, d'habitude, euh, ce sont des femmes aussi engagées auprès des jeunes filles. engagement boobu moo tax il faut ñu am suñu formation bu mucc ayib boo xam ne dañ leen di mën a féete côté bu nekk waaw loolu mooy suñu tànk tey fii ci Bambey. Euh, c'est c'est réussi daa des ay gox rek. léegi kay ñu ngi ci donc euh, la promotion des sciences pour les jeunes fi ñun foofu lañ toll léegi. tolluwaay bii day bëgg nañ ko romb ndaxte ñoom dinañ doon sumb formation boo xam ne ni dañ ci jàng informatique ak centre de recherche bi nga xamante ni moo nekk ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk ci Bambey. plateforme yoo xamante ni ñoo ngi leen koy wax ñu koy appliquer sur de gestion des not surtout bi mujjee gen nii. Euh, ci loolu nag ñun centre bi ñun li ñuy amen njëriñ mooy benn structure la boo xamante ni ci Sénégal ñoo gën a proche ci population bi parce que lu ñu demandé ci formation moom lañu leen di indil ñoom dinañ leen jàngal lu ñu naan informatique de base jàngal leen bureautique ba telle sorte que képp ku nekk sa sa sa sa sa sa kër mën nga préparer say cours mën nga préparer say exercices wala mën nga préparer say devoir boo ñëwee indi ko tranquillement à à l'école ah. ñii nekk ci centre yooyu nag nekk ay ndaw yoo xam ne nii recruter nañ leen wante ba nii mënuñoo gis seen bopp ci fonction publique bu Sénégal